asalaamaaleykum mbokk yi juróom-ñaari waxtu mooy jot ci seen télévision nationale ñu indi leen xabaar yi nga xam ne nii ñoom ñoo fi jotooru si xabaar yi nag ni ñu koy baaxoo di defee li ci gën a fës leen la rek moo di tolluwaay tawat ji nga xam ne ni moom la ñuy wax Covid 19 ndax tey ji Sénégal am na ñaar fukki euh, nit ñoo xam ne nii. nimmiku nañ ne amaat nañu doomu jàngoro ji loolee nag kilifa yi nga xam ne nii ñoom lañ dénk lépp lu jëm ci wàllu ni ni ñuy baaxoo di waxtaane ñoom la ñu labiré ba tey itam ci wàllu xabaar yi dinañ waxtaane li nga xam ne moo doon euh, garab gi nga xam ne moom la ñuy wax itam chloroquine ndax boobu ba tey itam nee nañu mën nañ ci am yaakaar ci lu mën a indi am pajtal ci tawal jooju loolu moo waral itam ñu am gëstu boo xam ne def nañ ko jagleel ko ko niñ ko wax ci bopp xabaar yi kilifa yi nga xam ne nii ñooy baaxoo di ñëw bët bu set ngir indi ay xabaar ci tolluwaayu tawat ji xam na nañ ne li mu ñaar fukki nit yokk nañ ci ñi nga xam ne nii amoon nañu tawat ji nee nañu itam am na nu ñu ko pàcc pàccee ca ni nga xamante ni fu nekk fa mu jóge ak na nga xam ne itam noonee la ñu nimmee ko ne noonee la amee tawat ji ñu teglu ci teew teewlu ci docteur Waly Aloyse euh, Aloyse Waly Diouf mi nga xam ne nii mooy kilifa gi baaxoo di teew itam ngir di ñu indil xabaar yu ni mel. de la santé de l'action sociale. jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci juróom-ñett fukk ak juróom ñaari test yi ñu def ñaar fukk ñoo ci positif maanaam juróomi cas importé moo ñu jóge bitim réew fukk ak ñeenti cas contact yi jaxasoo woon ak ñu jóg yore doomu jàngoro bi benn cas communautaire benn ci malaat yi ñu hospitalisé woon wër na ci bésu tey ñeneen ñi des hôpital ñu ngi tane waaye am na ñaari malaat yu sonn yu nekk sawataas ci bésu tey dalee ko ci cas bi ñu njëkk am senegal woññi na téeméer ak juróom benn fukk ak ñaari cas ñaar fukk ak juróom ñett wër nañ si mu des téeméer ak fanweer ak ñeent ci hôpitaux yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolli di woo askan wi ñu sàmmanteeg ndigle yi nga xam ne moom la ñu joxe. kooku nga xam ne nii moo doon docteur Aloyse Waly Diouf mi ngi ko doon junj léegi nee na ci ñi nga xam ne nii ñoo nekk ca lal lopitaan yi te tawat jooyu di Covid 19 dal leen. am na ci ñaar ñoo xam ne nii mel ne dañoo sonn ba nekk itam sowetaas loolu itam kenn ñit naa tongoy docteuram ñi koy wax itam docteur Bousso indi na ci ay leeral ñu teewlu ko. am nañ ci ñaar yoo xam ne nag seen ah, seen situation xaw nañu jaaxal tuuti bu xaw a tuuti dañu nekk sauvetage donc ñaar ñooñu am na koo xam ne sax dañ koy may pour mu noyyi te loolu waxoon nañ ko plus ñuy am ñuy gën a am ay cas yu bari plus ñuy am ah, possibilité am ñoo xam dinañ garaaw te ñooñu souvent ay mag la ñu nekk. ba pare am yeneen feebar yoo xam ne moo nekk si seen yaram te bu ñu xoolee aussi ci wàll bi ñi euh, ñi jóge bitim réew ñoo ak ñi nga xam ne la ñuy wàll ñoo gën a bari ñu presque bu ñu jëlee euh, téeméer euh, ñeent fukki ak juróom yëpp ñoom ñoo koy indi donc loo xam ne war nañ ci bàyyi xel te xalaat nañu ak mesures yi nga xam ne jël nañ ko ci tëj frontière bi dina mën a dimbali fii ak à partir du 4 avril ñu gis naka la feebar bi di jëm. parce que fi mu nekk nii dinañ am toujours ñoo xam ne dinañu jógee bitim réew ñu nekk ci dëkk bi di def feebar bi. ci gox yi nga xam ne ñoo am feebar bi juróom-benn la donc dakaar la jurbel Thiès Saint-Louis Ziguinchor ak Fatick ñooñu dëkk yooyu bu nekk am na benn malade boo xam ne am nañ ko. bésu bërëbu fajukaay yi juróom-ñaar la juróom-ñaar la am na ñeent yu nekk Dakar donc hôpital Fann bi nga xam ne moo njëkk a tijji hôpital euh, Dalal Jàmm ak hôpital d'enfants bu jam ñaajo bi am nañu benn structure bu réanimation sauvetage bi bi nga xam ne mi ngi nekk hôpital Fann si chirurgie cardiaque boobu léegi ci la bokk ci région yi ñeent ñett ñu am mooy Touba euh, Ziguinchor léegi depuis demb bu Saint-Louis bi ibbeeku na parce que Ndar am nañu malade boo xam ne def nañ ko fa démb am nañ aussi yeneen euh, place lal yoo xam ne ci ay hôpital yoo xam ne pare nañu muy hôpital principal muy hôpital Chaume benn hôpital euh, privé la boo xam ne mi ngi ci hôpital Fann ñoom dañu joxe seen lal pour ministère de la santé mun fa teg maladie am nañu aussi benn clinique bo xam ne suñu benn naataango docteur moo ko joxe pour ñu mun fa jël aussi maladie donc am nañu ay lal yo xam ne ñu ngi koy préparé parce que dañuy xalaat ni aussi dinañu amaat ay malade yoo xam ne dinañ ñëw ba nga xam ne bu ñëwee dina am fu ñu leen di teg li ñu mën a wax rek mooy euh, ci wàllu feebar bi bu ñu vraiment bu ñu am xel ñaar feebar bi fi mu nekk nii mi ngi commencé jóg mais ba léegi duñu jaaxal ñun jaaxal ñu parce que xam nañu feebar bi dafa war a jug fi mu nekk nii nit yi war nañu respecter mesures yi ñuy joxe yëpp ci wàllu cat bi ci wàllu bañ a duggante bi ba nga xam ne dinañu mun a xeex xefar ba du ba du yokk maa ngi leen di gërëm di leen sant loolu doon kàddu day naagal ngir lépp loo xam ne itam moo doon ay matuwaay ñu mën cee waggar bu baax eh, ci tawat jooju itam xam na nañ ne am na garab gu ñuy wax chloroquine chloroquine itam am na ay gëstukat yu ne moom mën nañ cee am yaakaar ne mën naa indi saafara ci tawat jooju moo waral itam ñu ci baree baree bari song pharmacie yi ngir dem di ko fàggu ji xam nañ ne sax loolee mel na ne dama gisatuñu ko ci pharmacie yi loolee nag kilifa yi nga xam ne itam ñoo yëngu ci wàllu pharmacie nee na loolu lu doy waar ndax neewul lu gën te itam kenn diglewu ko ñu teewlu ci Saliou Seck garab bi nga xam ne nii dañ ko duppee chloroquine nag lu ñu nemmeeku mooy ñëpp koy tudd léegi waaye nag nekkul ci pharmacie yi nga xam ne ñoo nekk fii ci ndakaaru dinañ gis prescription bu nekk am na ñoo xam ne sax dañuy copier ay ay feuille indi di wër chloroquine parce que nit ñi dañu tiit dañu tiit dégg chloroquine xamatuñu fan la ñuy téye moo tax ku nekk mu ngi daw di seeti pharmacie ndax dina mën a am chloroquine ñoo ñu koy laaj nag ñoo ñu koy laaj laaj bu xaw doy waar sax bu jéggi dayoo ndax xam nit rek bu nee loo xam ne nii daal doy na waar lii mooy faj jàngoro boobu loolu moom ñëpp ciy daw. waaye nag garab yi nag moom yàggoon na di nekk ci pharmacie yi nag lii nag da doon faj yenn feebar yoo xam ne nii am na fii ci Sénégal. garab la bi nga xam ne euh, wuute na ak bi ñu xam donc njëriñam mooy ñi am yenn feebar yi nga xam ne dafay jàpp yax yi wala feebaru der yi nga xam ne daal dafay sonal nit ki ba daanaka daf koy topp si du giiru dundam ñooñu lañ ko doon jox. ñu nemmeeku léegi nag mooy yaakaar gi ñu am ne li nga xam ne ni moom mooy hydroxychloroquine mën naa faj feebar bi nga xam ne ni moom mooy coronavirus loolu tax nag askan wi yëpp di dem ci pharmacie ngir di jënd garab bi. hydroxychloroquine bu ñu ko jëlee dose bu ëpp mën na indi problème mu xol mën na indi problème mu gis-gis mën na indi problème mu dégg-dégg ba tax na docteur yi bu ñu koy joxe xam nañu ban dose lañ koy joxe dañ koy suivre pour bu waree wàññi ñu wàññi ko donc déggaluñu kenn daal mu jël ko. parce que loraange bi ci nekk moo ëpp foofu li si di daw mais pharmacien yi xam nañu ne waruñu ko joxe te ba daanaka kenn du pharmacie tey jii ni dama bëgg rek euh, hydroxychloroquine euh, ñu jox la ko loolu moom daanaka amatul. bu ñu sukkandikoo ci Sénégal amul lu doy ci wàllu hydroxychloroquine. laboratoire yi ko doon def puis ëpp yi jox Sénégal Maroc la ñu ak France gis nañ France décret bi mu génnee ni nañu jëriñoo hydroxychloroquine pour faj maladie décret boobu ci suuf. dañ ci wax ne tere nañu bépp garab bu am hydroxychloroquine ñu génnee ko France France euh, Maroc aussi laboratoire bi koy produire royaume bi dafa ne lépp lu ñu produire na toog biir Maroc bu dara génn xam nga bu demee noonu pour approvisionner réew mi ñu yam rek bàyyi grossiste wala fournisseur habituel yi def seeni commande di xaar parce que commande yi bu demee mën naa am ñu annuler leen wala duñ leen traité lii nag bi ñu demee fi nga xam ne ni moom mooy pharmacie nationale d'approvisionnement ñoom li ñu xam ne mooy jël nañ matukaay yëpp ba fexe li nga xam ne nii moom mooy chloroquine li ci Sénégal soxla rek dina ko am. stock bi fi nekk nag yaakaar naa ni moom buñ ko xaymawee moom mun na ko doyagum pour li muy defee mais terewul ñu ngi wutaat ci fournisseur bi leneen luñ koy renforcer lee parce que comme cas yaa ngi yokk tamit approvisionnement bi tamit du taxaw continue la te loolu mooy suñu liggéey. gannaaw boobu nag ñi nga xam ne ñoom ñooy jaay garab yi nag ñu ngi sàkku ci askan wi bu ñu dem ci pharmacie yi di jënd garab bi te amuñu ordonnance garab yi nag képp ku ko war a jënd dañ la ko war a bindal ci ordonnance jërëjëf Saliou euh, tawat jooju moo waral sax euh, daanaka këru liggéeyukaay yu bari di itam di jekkal ak seen taxawaay ak itam di am luñ ci jooyanti buñ ne ba ci banque yi ñoom am na ay matuwaay yoo xam ne jël nañ ko ngir gën a sàmmonteeg kaaraanga giñ ci laaj waaye itam gën a sàmmonteeg digle yi nga xam ne ni ñoom la waa kër docteur digle ngir mën a fegu ci tawat ji ñu teewlu Anis Ñaañu Maane ma leen seeti woon ay butéelu gel ak ay ligne yu clients yi di taxaw mooy li ñu fekk ci banque yépp fii ci dakaar ci jamono yi jàngoroy coronavirus mesures yi nag gab yi ak guichet yépp ci bokk. am benn euh, tableau boo xam ne benn télévision boo xamante ne dañ si doon fàttali jumtukaay yi nga xamante ne nit ñi war nañ ko def war nañ ci jublu pour moytandiku nuyo bi encourager nit ñi ci raxas yeeg yooyu.

pour ñoom itam ñu fagaroo dañu am ay point focaux mooy nit ñi nga xam ne fépp fu nga xam ne CBAO nekk na ko si Sénégal ak si kii bi ñu ngi taxaw pour jàngal nit ñi yan geste leen war a def topp mesures sanitaires yi boole si distribution gel yi daf neen ko pour képp fu nga xam ne dugg nga si agence bi wala ngay dem si gab bi da ngay am gel hydroalcoolique amna aussi euh, distance bi nga xam ne dañ ko war a maintenir suñu diggante ñun ñëpp ñu koy def entre collaborateurs et puis aussi ak client yi ak ñun ñi actuellement aussi dañu limiter nombre nit ñi nga xam ne ñoo war a yegg si agence bi ndoor bu dee agence bu ndaw la juróom la bu dee bu xaw a gën a mag mu nekk fukki nit. ca BHS ak ca CBAO lépp yemb na ngir aar ñi fay liggéey ak client yi ñun fi ci BHS dañuy télé ibi ibbi ci kàttanu yalla dañu am ben système de ramassage bo xamante normalement 7h45 lañu waron tambali di liggéey bi mais légui ku fi ñew boru 6h30 7h moins le quart di nga fekk suñu personnel bi taxaw pour jàppale client yi nga xamante tel nañu ñew nga xamante seen taxaway du fi yàgg. ñu yore walum nettoiement bi ñom ñoom wuñu muy lu dalal xel lol client yi. déjà bëriwul nit ci biir te soo duggee tamit ñoom dinañ la jox avant ngay dugg sax nañ la jox euh, kii hydroalcoolique bi solution bi donc ça se passe bien quoi man pratiquement fu may dem sax damay yore sama sama poche mais avec ñoom vraiment ça va quoi. gannaaw ba réew Sénégal amee kaam bu njëkk ci Covid 19 banque bi di CBAO indi coppite ci liggéeyam. waaw seet neen daal ñi nga xamante ne seen liggéey mën na leen tënk seen kër ñu toog fa te du yàq dara bu ñu leen soxlaa ñu mën a ñëw ñooñu fi mu nekk nii loolu tàmbale neen ko commencé na. ñu bari ñu ngi toog seen kër mais terewule ñu ngi nekk di topp si seen liggéey mais parce que jumtuwaay yi si war yëpp pour ñu mën a toog seen kër liggéey am neen ko te ñu ngi koy def nekk nii. ak weer wu dee wi matuwaay cet yu takku jël nañu ko ci banque yi lépp ngir client bi jot payam bu jaarut. ci benn wàllum feebar. jërëjëf Anis Niagne Mané ci tawat jooju moo waral itam ñi nga xam ne nii ñooy toppatoo lépp lu jëm ci wàll garab yi di waa pharmacie ñoom ñu amitam ay bànqaas ci diiwaan yi xam ne nañ ne day am la ca war ci ay garab ak la nga xam ne itam moom lañ leen war a yóbbul ci lu ñu war a jumtu ay jumtukaay loole mel lépp bokk na yemb. fexe nañ ba ku nekk ak barab boo mën a nekk itam la nga xam ne nii moom nga fay soxla ñu daal di la koy jox ñu teewlu ci itam docteur Soxna mi nga xam ne nii kenn la ci kilifa yi nga xam ne bokk na ci ñiy saytu lépp lu jëm ci wàllu garab yi te mu nekk ci pharmacie bu mag bi nekk fi bi actuellement def nañ ci ay jéego yu bëri ndax ñun amoon nañu stock bu nga xam ne bii moo fi nekkoon boobu ba léegi ci la ñuy liggéey mais nag stock boobu tamit. ñi ngi koy renforcer fii niveau central ñun joxuñu population bi dañuy yóbbu pharmacie régionale d'approvisionnement yi nga xam ni am na ci chaque région foofu la ñuy charger camions yi di ko fa yóbbu buñ ko fa yóbboo ñoom am nañ structure sanitaire yi nga xam ni itam ñoom ñoom lañ ko war a livrer buñ leen ko joxee ñoom structure sanitaire yi la produit yi di dem directement pharmacie nationale d'approvisionnement ou les personnes physiques ci pharmacie régionale d'approvisionnement lañ ko après pharmacie régionale d'approvisionnement yóbbu ci structure sanitaire à savoir district dans le cadre du Dieguesena et PPS dans le cadre du Yegsena Bobo ba léegi daal heure bu ñu sollicité rek ñun ñi ngi leen di jox li nga ne mom pas soxla mais terewul nak ñun tamit ñu ngi def suñu réapprovisionnement parce que fournisseur yi nga xamni ñom ñoo gañe suñu marché yematuñu sax ci ñom ñi ngi dem ci fournisseur yi nga xamni yenen fournisseur fournisseurs yeneen produit lañ mais buñu déclarer wala ñun ñu soxla buñ leen laajee buñ ñu mënee jox ñom ñi ngi ñuy livrer et ci cadre bobu ñi nga xaar 1 million de masques bu nga xamni ne bi euh, waroon nañ ñu wax ni dina yegsi le 30. ku ko docteur Sokhna gay nek kenn itam ci kilifa yi nek fofu ci pharmacie nationale d'approvisionnement approvisionnement indi ay leeral yu ni mel. li eh, soxal tawa joju mo waral sax ñi nga xamne ni ñoy joon jëwriñ jiñ denk lepp lu jëm ci wal alam bi di environnement ñom itam ñu am ay matuway jël ndax nenañu park ba nga xamne ni fa la jurgé ak mala yi nek ñukay wax itam park nation ak yenn réserve yi fofé dañu giñ ko mujj tejj la ko waral tam moo di tawat ji ak dugg ak génn bi nga xam ne moom la ñuy bañ waaye nag nee nañu am na loo xam ne ñi ngi wéy di ci xippi seen bët di xool ndax jamono yi mën naa am ñi nga xam ne ay defkatu naka su du noonu ñi dem itam di gor àll bi itam di dagg la nga xam ne moo doon garab ya loolu am na matuwaay yoo xam ne jël nañ ko ngir xippi seen bët ngir bañ lenn loo xam ne ni ak faay gu ci am la ñu teewlu ci Lamine ci walu gàncax gi am na tey ay mesures yu am solo yi nga xam ne jël nañ ko ci secteur bi loolu nag ngir bokk ci li nga xam ne mooy xeex li di coronavirus bi li nga xam ne mooy nationaux yi ak privé yi tej na leen ndax barab yi dafay faral di dalal ay visiteurs yu bare bare. ginnaaw bi président de la république joxe tegtal yi ñun dañoo décider le lendemain euh, tej li nga xam ne moom mooy parc yi ak euh, li nga xam ne moom mooy réserve yi. Euh, boo xoolee parc euh, géologique de Anne dañ ko tëj euh, boo xoolee également réserve yi nga xam ne ay réserve privé lañu parce que jël naa sama téléphone woo ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñooy yi pour wax leen ni nañu conformer wu et c'est ce qu'ils ont accepté de faire mooy la réserve de Bandia ak la réserve de Fatala beneen bi mooy li nga xam ne moom mooy les box alcoolisés yoo xam ne biir ministère bi fépp def nañ ko ci euh, ñaax également suñuy collaborateurs euh, pour ñu respecter li nga xam ne moom mooy distanciation sociale bi mais également ñaax leen ñu respecter scrupuleusement li nga xam ne moom mooy les gestes barrières ci wàllu garab yi nga xam ne dañ koy faral di dagg rawatina ci zone sud jamono yi yëf yi daanaka tàmbali na ba tax na foofu itam am na ay dispositions yi nga xam ne nguur gi eh, jël na ko. ñu ngi leen di ñu ngi waxtaan ak ñoom euh, tout le temps euh, di leen ñaax mais également euh, pour wax ni coronavirus bi taxul liggéey bi arrêté ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci terrain bi bien sûr que dañu war a respecter consignes yi nga xam ne moom la ñu joxe mais position yi nga xam ne moom la ñu occupé woon parce que am na ay régions yoo xam ne constaté nañu coupe de bois bi dafa commencé woon tar moy les régions sud-est dinañu continuer di jokkoo ak ñom di di leen sensibiliser benen wàll bi euh, xam nga ni euh, environnement bi am solo moy changement climatique euh, ñaari mbir euh moy moko moko ñaari bànqaas ñoko ko benen beneen bi moy l'atténuation benen bànqaas bi di adaptation atténuation moy nak la fexé ba limiter li nga xamné mom moy don émission des gaz à effet de serre euh, constaté nañu euh, je pense que même fii ci suñu réew euh, xam nga am nañu centre bi nga xam ne mu ñu ngi ko tuddee centre de gestion de la qualité de l'air fan yi constaté nañu une nette amélioration de la qualité de l'air au niveau de de Dakar. jëwriñ bi yor gàncax gi teg na ci suuf activité yu mu daan amal ngir askan wi bàyyi di jëfandikoo li nga xam ne mooy sachet plastique yi loolu nag ngir bokk ci li nga xam ne mooy xeex lii di coronavirus. jërëjëf Lamine jërëjëf itam mbokk yi ci teewlu bi loolu daal moo doon defiru son ci àll xabaar dëppag liñ ci loon ci li ñuy def lan moo di leen ñaanal gaal mu ci géej gi xew